successful. Laga Josana chuka njogo inafanyiko hango. Aliuser beneen bi ñu gis la nga téye micro seen lamb TV ñu bëgg a xam ndax Modou mu ngi arène bi wala Modou mu ngi seen lamb TV lan moo waral seen lamb TV bi Modou Anta. waaw si tam mooy li ma la wax rek parce que damay dégg sax gars yi naan dama quitté arène bi dama. quitté arène bi nekkatoo arène beeg yooyu. <laughs> mais mooy li ma wax rek arène bi moom. Mhm. comme li ma wax chaque jour bu fekkee ne xaalis moo ma fay jëlee ba tey jóge naa fa. dëgg la moom arène bi. bu doon xaalis moo ma fay jëlee. Hmm. xam dan naan gars yu bëri dan naan dañuy nekk site internet yi mais naan bu ñu ma fayee xaalis ma génn fii. gars yu bëri xam nga day am ñoo xamante bi nii. dan naa lay booy bi tey bu fekkee ne bëgg nga ko recruter fay ko xaalis bu bëri. boo ko fayee dina bàyyi fi mu nekk mais man bu doon loolu loolu moo may jëlee arène bi. Hmm. kon yaakaar naa du fa jógee quoi franchement. dëgg la nag seen lamb TV bi comme li ma la wax rek benn ndaw Sénégal moo ko moom. Mhm. koo xamante bi nii ci làmb la nekkoon. dëgg la mën naa ne ñiy suivre làmb mën nañ koo xam. Mhm. question boobu nag amateur lañ koy posé. lañ koy bàyyee bëre na tàkkusaan gu nekk. dëgg la ca Iba Mar bu Diop. ndaanaan la bëre na tàkkusaan gu nekk ca Demba Diop. ndaanaan la mais nag. Mhm. jàmbaar dawul dafa wuti doole. dëgg la yàlla na dafa tukki. tey dem ba concentré wu si làmb. ndeysaanam yàlla dogal dem ba mu site ubbi site internet. internet na ko gars yi jàppale. ñu xam ne doomu Sénégalais la wax dëgg yàlla mbër yi bàyyi bëre yëpp daw. bu ñu defan ni moom kon léegi làmb innové parce que won na làmb ginnaaw. Mhm. dem France nekk fa. Mhm. mais franchement fàttewul làmb. Mhm. mais li ma lay wax ci arène bi rek. Siteu man maa ngi arène bi ba tey. jógee goo arène bi. maa ngi arène bi maa ngi seen làmb TV. lu parce que bu ma la ko waxee nag dina naqaree gëm. parce que lu mën a nekk la. ci ban côté bul fàtte ne nag ñaari contrat dafa xew de. dafa <laughs> ay waaw ñaari contrat dafa xew ba ñett Balla Gaye ñoom ñëpp ñu ngi <laughs> contrat. ñu ngi ci ñett kay Anta tamit nekk si ñaari contrat parce que boo dee xool ñaari contrat ki la nangul. Mhm. mooy ki nga xam ne moo la yilif. moo la yilif dëgg la parce que maa ngi nuyu waale de passage sama DG. Mhm. muy Xavier Seck mhm. maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar donte moom bëggul ku koy tudd ci micro bëggul ku koy tudd rajo parce yàgg na nekk ci làmb te ñu téye làmb ji ci la bokk te mosoo cee dégg turam mosoo cee gis photoom dama ko woo ma expliqué ko mu ne ma loolu amul benn problème bu la neexee mën nga fa dem nga liggéey nga am fa sa salaire ñëw ci arène bi am fa sa salaire man nangul naa la loolu mu nangul la loolu parce que dama laa yéene jàppale comme sama rakk ki moom site bi aussi tamit. Mhm. moom xam naa bu demee bu demee ba ci kanam. Mhm. xam nga dina dina wax li nga xamante bi nii mooy kii am. ay ay ay ay ay projet yi nga mhm. xam ne moom la bëgg yëpp si làmb dëgg la maam it maa ngi koy nuyuwaale déposage bi ma bi ma kii yow sax yaa ma booleeg moom moo tax moo def <laughs> yow yaa ma booleeg moom bi ma booleeg moom man li mu bëggoon mooy que mu jógee arène bi mais bi biñ ci waxtaanee la ma ko wax nangu no ko man li ma wax nangu naa waxtaan rek ngeen juboo kon nag nañu xam ne mhm. gars yëpp man maa ngi seen lamb TV maa ngi mhm. arène bi benn la dëgg man maa ngi fi man ak yow mhm. ñoo ngi ci émission yi képp koo xamante bi ni dañuy suivre wala dañuy soppe ñi ngi lay ñaan nga dem abonné ci seen lamb TV di nga seetaan Siteu 2 di nga seetaan Modou Anta ñu continuer ci kii bi mais comme li ma la wax rek arène bi moom caaxaan jëlewu ma fa parce que site yu bëri yu nekk fii nii wallaay lancim xam naa si dara ci koor laa jóge mm-hmm. démarché nañ ba bataay mm-hmm. fay nañ ma prix boo xamante bi ne arène bi fayu ma ko donte arène bi fay baax na mais arène bi mm-hmm. kóllëre mi moo ma boole ñoom dëgg la ndeysaan surtout téléphone bii bi moo ko jëndal arène bi oh, dëgg la bii ma ma ko jëndal beneen bii arène bi ñoo ma de mois dañ may fay sama xaalis du tardé dëgg la connexion ñoo ma ko yoreel dañ may may xaalis tabaski day jot ñu fay ma sama salaire jox ma xaalis korite day jot ñu fay ma sama salaire jox ma xaalis mhm. lu ma soxla lu nekk dañ ma koy defal di nuyu waale aussi tamit ka ma fa yóbbu muy Pape Malick Pape ku dul gërëm nit ku nekk doo gërëm yàlla dëgg la moom moo tax ma nekk ci micro di wax mhm. maa ngi koy nuyu di ko ziar di ziar équipe bi yëpp mhm. Lamine aussi tamit bi fa nekk sama booy la fii ba Medina maa ngi koy ziar bu baax di ko wax ne ko mu góorgóorlu affaire bi noonu la fi may jeexale daal di leen sant mën naa jaare foofu tàggu boo ma ko mayee di leen sant ñoom ñëpp di sant président borom France moom it ci arène bi la nekk di sant mm-hmm. suñ PDG bi nekk fii Ema mm-hmm. moo géré affaire yi yëpp maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm sonnul na arène bi mm-hmm. guddil na leen bëccëgal na leen wax dëgg yàlla ñun li ñu bëgg ci arène bi mooy que arène bi dem ba àgg fi nga xamante bi nii foofu la site internet yi di àgg te yaakaar naa personne am na fa yegg Mm-hmm. di sant ñëpp di gërëm ñëpp Siteu mm-hmm. di baal àq ñëpp di baalu àq ñëpp comme waxtu bi dañoo xaw a xoj dëgg la dëgg la noonu lay demee kookoo nekkoon Modou Anta san frontière borom arène bi TV borom seen lamb TV mais Siteu nag bul fàtte Lamine dañ maa tuddee drapeau le 27 juin loolu sama xarit da ko def Sané. <laughs> Lamine Sané jamtan production moo a tuddee drapeau le 27 mhm. juin. si xam ne boobu seen lamb day ñëw accompagner la sa gaale bi stade. non loolu beneen affaire la ak daal maa ngi woo ñëpp grand mhm. combat bi Tigre moo koy bëre ak Boy Jaxaw. Boy Jaxaw bi. Raskas Jackson 2 ki nga xam ne mooy euh, combat euh, technique beneen combat bi Raskas ak Jackson 2 mhm. sama drapeau moo nekk Sahara. ak Arsenal ak Arsenal. falaay falaay maa ngi woo gaa yëpp nag wax dëgg yàlla képp koo xamante ne parce que mënumaa jël Siteu 2 ma woo ko ne ko drapeau bi mhm. mënumaa woo Pape Malick wala Lamine wala Tony ne ko drapeau bi dëgg la képp koo xam ne gis nga ko sama profil estati mënumaa mhm. woo Lamine naar di ko wax képp ku ko gis sama estati wala nga ko seetaan ko interview jàppal na loolu mooy sa woote maa ngi tàllal loxo ñëpp mhm. xeebu ma dara nag ci xalaat ci idée yëpp jox ñëpp rendez-vous le 27 juin incha allah arène nationale ak Sané noonu lay demee kooko nekkoon Mor Anta sans frontière di ci jaajëfal Idaali ñi ngi nag parce que affaire yi ba amee daf maa woo ne ma mhm. jasinaire bi ngay sol maa koy jënd ñi ngi moom ñi ngi production ah, man maa lay gunge de ñi ngi war naa def affaire de ci kalaafam nii di yankaw mhm. ca Daouda Fall mhm. Kaw Gourdé Albarka Kayre yàlla yàlla may réussite may ko ci satisfaction totale barke Serigne Bamba di siyaar aussi tamit Cheikh borom Medina tey dafa ñëw ba sama place jënd daal yu bees sax jox ma ko ne ko maa ma maa ko def ci drapeau bi Cheikh Sey maa ngi koy siyaar bu baax a baax di siyaar ñoom Maam Saliou di la jaajëfal si noonu lay demee kooku nekkoon moo di Anta sans frontière kon lu mu wax rek seen lambu TV yi daw ngeen abonné doomu Sénégal moo ko moom tàkkusaan saan ne def na ko fi mais man si simaala benn yoon laay tooy ba ma contacter dama ne ko moo di Anta laa xam moo ma dugal si mbir yi wala moo moo si gën a may fit kon bu ma jëlee leneen di ko jox keneen gorewu ma moo tax ma jël numéro am boole leen ñoom ñaar lépp lu si war moo di Anta moo ko dox ba li waxukaay yi ngeen di gis moom moo ko dox mais en tout cas doomu Sénégal nañ ko jàppale ku gëm làmb la ku bëgg làmb la hmm. te fas yéene wul yem fii fas yéene na déwén incha allah rabi dina dagg licence dina dugg si <laughs> combat ba naru ko na wax mais déwén incha allah rabi moo di anta <laughs> eh. déwén tournoi bu neex danañ ko tëgg muy ay jeunesse ay xale am jom xale <laughs> ko wax te bindal téere nga takk di siyaare waat gaay yëpp di bëggee waat gaay naa leen comme ni ko moo di waxee rek ñaari avance dafa xew mais gaay nañ daw ñëw daal si abonné bi waaw nañ daw ñëw abonné di siyaare suñ caméraman moom it borom baax la deux avance dafa xew trois contrat dafa xew bëggee waat gars siyaare gars yi mooy baal ma àq jaajëf baal naa la si de yàlla na yàlla boolee baal la dañu joxante rendez kañ incha rek après korité ah. bu ma jógee Mbour incha hmm. ñu wàcc sur le terrain def émission yi sept huit dëgg la spectacle yu rëy lépp luy neex ci làmb lu nekk hmm. di jógee fi incha allah ñu jógee fi incha allah rendez Machuca yo goina afanyiko hango